am lu ma la fàtte laaj tuut sëñ corona ndax yow fi na yaay suñu kilifa ndax yaa nuy conditionné léegi ñun koor gii nga xamante si nii xam nga koor boo ndogo perem da ngay diis gan ndax bisaab bi ngay naan ak ndox meeg ak yooyu ngay saxal du nekk ci lenn lenn lu may jox tàllal say tànk léegi yow loolu loolu loolu noonu ci mën a dimbalee ak kilifa yi nga xam ne tàmm naan reer doxantu xam nga ni koor gii di ñëw nga xam ni koor diggante 5 heures ci ngay commencé jënd say saucisson say fromage gruyère rek ren sax gëmën ni daan ko tal sama classe gi man waaye nag yàlla baax yàlla bari na sutura ah yooyu yëpp nga war koo jënd lu mel ni bi diggu sëñ Abdou Fatah hmm? war a dem sa kër ndogu ji léegi ñu war a tëdd 18 heures ban waxtu mooy waxtu ndogooti sax 19 heures nga ndogu war a doxantu tuuti li nga lekkoon wàcc léegi léegi léegi loolu loolu noonu noonu ci mën a dimbile sëñ korona te ñu dimbali sëñ bi te dem sa yoon bala ñu um koor gi kañ la sax alxames la ñuy la la séntu bu njëkk lu bon bon samedi wala ajjuma dana fekk ñuy woor te nga ñëw dimbali ngir yàlla ko bokk te ma laa wayal bokk te ma laa wayal bokk sëñ bi corona ta nga dimbali ñu waay lay lay la laa koroomay dugal ci lu ne ndax man kenn xawma ci way dawal oto lan ma xame waaye ma way corona ndax muru suñu dem ni korona daal neex ci yow daal fula ji nga am ak fayda ji ñëw réegoo rek réegoo rek te dem réegoo réegoo daal wali sekk doomi coon sekk ci ba mu koy way yow la ko wayal nga ñëw réegoo rek réegoo rek réegoo Espagne réegoo Italie dem ca sin waaye riigu fa fii nag fi nga gën a riigoo ndax li tax nga gën a riigoo fii ñun amuñu jenn doole ji bay tëdd yenn heure yi di xëy yenn heure yi daanaka xaaj bépp senegal ay jinne lañu ñëpp ak mën a yem jinne yu jëmale leen korote ñoo dimbali dem sa yoon nanu nañu torop dimbali ñu ngir layal rasul yi koor gi moom bu la ci fekkee moom man day koor gi moom mënu ñàkk doxantu moom mënu maa ñàkk doxantukat kat tax liif moom xam naa la ca ndax ñam naa ko li man du ma naatale liif man moom sama li ma ci daj daa métti ñam naa ci kaso ñam naa ci liif liif ba ma koy ñam boo maa ngi la nga ci karap ji ca Ndakaaru du ma ko fàtte ba keroog may faatu boobu benn gel yaakaar naa laa jàppante jàppanteloon ba xaw koo dóor xam nga emprunté yi rek police waaye lan ma yóbbu oto baa ngi taxaw di ma xaar ñu di ma dóor samay liif waa ji dana ma fukki liif laa lay dóor boo ci moytu naa ko duubal te muy ñaar ma concentré wu ko la ma ca gën a yéem nag sama tuba ji ba sama xottaat yi génn mu jël ndox <laughs> ndox la jël bis ko ci sama xottaay gi loola nag laa xamul man lu mu lu mu lu mu ci jublu woon di dóor xam nga bu doon bu nee wér comme ni ngay dóoree gone naa ko da nga ko defeti ba léegi da nga dox bër bi waaye moom bu nee wér rek day tegaloo day del si ma concentré wu di si yëpp waaye euh, bu ma bu ma ndogoo moom faaw ma doxoon ndax dëgg yàlla ndax dama ko tàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu